mbokk yi jërë ngeen jëf fi teewlu bi di leen dalal seen revue d'actualité de ce mardi 3 novembre 2021 ñu ko ak football ak Edouard Mendy mi nga xam ne ni mi ngi wéy di wane boppam ci Ligue des champions football ba léegi ak tirage championnat bu Ligue 1 ak bu Ligue 2 bu Sénégal bi nar a amalee tey ci bëccëg yi ñu daal di jàll ci bit chëkkër rek suñu gayndey am dam seen diggante ak Portugal ñeer première journée tournoi international bu Dubaï ñu fas yéene tëjee suñu revue d'actualité ak handball nes kiis ñu daal di leen koy frank fàccee mbokk yi ñu leen di dalal ñu daal di dooree revue d'actualité bi ak Edouard Mendy mi nga xam ne nii mi ngi wéy di wane boppam ci Ligue des Champions démb ginnaaw équipe am boobu la di Chelsea daal di door Malmo ci 1-0 Edouard Mendy dafa daal réaliser li nga xam ne nii mooy benn clean sheet bu bees mu nekk itam fukk ak juróom benneelu clean sheet am bi mu réaliser ci Ligue des Champions mu nekk guléet benn gardien de but daal di réaliser boobu performance gardien de but sénégalais nga xam ne nii fu ñu toll nii moom moo nekk ci raw gi ci gardien yu ëppale clean sheet ci Ligue des Champions ren benn ginnaaw ñeent match te boobu compétition loolu di firndeel ne Edouard Mendy mi ngi wéyal performance yu baax yi mu doon def daaw ndaxte bu ñu fàttalikoo sénégalais boobule di gardien de but moom moo daal di dooroon recordu Navas ci ki ëppale match sans bi te mu tolloon ci neuf. ñu jàll ci football local daal di waxtaanee suñu championnat bi nga xam ne nii tirage au sort bi nañ ko daal di amal tey si bëccëg gi saison 2021 2022 bu nar a tàmbali le 20 novembre bii di ñëw jàppale na tey si bëccëg gi foofu la ci siège de la ligue dinañ daal amal li nga xam ne nii mooy tirage au sort lu jëm ci wàllum ligue 1 mu nar a nekk jongante bu nar a dox ci diggante fukk ak ñeenti équipe ràññee nañ ci ñaari équipe yu yees mi Guédiawaye FC ak Linguère bu xam ne nii si juin 2022 lañ nar a xam novembre bii di ñëw ci deuxième division itam am na ñaari équipe yu yees muy Walidaan bu Thiès ak Oslo foofu itam lu tolloo fukk ak ñeenti équipe ñoo fa daal di nekk fas yéene jongante li nga xam ne ni mooy place mën a utu Ligue 1 bu Sénégal ñu jógee ci football ca gazon ba daal di jàll ci football ca plage ba dem Dubaï fekk fa suñu gaynde yi nga xam ne ni dañoo daal di gagné seen match bu njëkk ci tournoi international bu Dubaï démb seen diggante la woon ak Portugal suñu gaynde yooyu dañoo daal di dóor équipe boobu la di Portugal ci 7 première journée bu tournoi international bu Dubaï ki nga xam ne nii mooy Mamadou Sylla moom moo daal dugal ñetti yoon rawul Mendy daal di dugal ñaari yoon Ninou Diatta daal di dugal benn ak Mamoud Diagne ginnaaw seen ndam lu njëkk ci boobu compétition jàpp leen ne tey si bëccëg gi ndaw Ngalla Sylla yooyu dinañ daal di jàkkaarloo ak ki nga xam ne nii mooy Émirats Arabes Unis mu nar a nekk jongante ñeel deuxième journée ci boobu tournoi suñu gayndee nag bu ñu amee ndam ci boobu match jàpp leen nañ daal di qualifié ci xam ne nii mooy quart de ñu daal di jàll ci handball daal di waxtaanee suñuy gaynde yi nga xam ne nii ñu ngi ci wàccaayu kan handball bi nar a amale ci atum 2022 ginnaaw ba ki nga xam ne nii mooy Frédéric Boujan nekk sélectionneur ba équipe nationale bu Sénégal daal di convoqué lu tolloog fukk ak juróom-ñeenti joueur nar dem foofu la ci France daal di bokk ci li nga xam ne nii mooy préparation bi nar a amale ci Cherbourg jàppale na fu ñu toll nii fukk ak ñeenti joueur ñoom ñoo daal di nekk ci boobu regroupement li ko waral mooy bu ñu sukkandikoo ci Frédéric Boujan yeneen joueurs yi kenn libéré wuñ leen maanaam seen club bi dañ leen daal di retenir technicien français boobu le daal dina le itam ne beneen joueur dina daal di yegsi fii ak ay heure équipe nationale bu Sénégal boobu la dina daal di wéyal nga préparation ak 15 joueurs yi fa nekk loolu moo nekkoon seen dernier point seen revue d'actualité di leen jëfal ci teewlu bi di leen jox di daje ëllëg incha Le site numéro 1 du sport au Sénégal, newsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.